jottali gi nga xam ne da ngeen koy jottali xew-xew yi nga xam ne ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak i xeewalam moom la ñuy séntu fi ci poroxaan nga jottali ngir ñi nga xam ne mënuñ fee ñëw te ne ci réew mi ndax ngànt day am ak ñi nga xam ne newuñ ci bitim réew te xëy na ngeen mën koo jotale ba foofu xew-xew bi nag ni ma ko waxee rek mooy màggal gi nga xam ne dañ koy màggal waajur sëñ Tuubaa wu jigéen di Maam Jaara Buso di ci fàttaliku ak dundam di ci fàttaliku taxawaayam ci diine di ci fàttaliku taxawaayam ci njaboot di ci fàttaliku taxawaayam ci adduna moom nag ga nga xamee Maam Jaara moom dundam yàggut waaye dundam gépp da koy jox boromam boroomu faye ko li mu ko faye te lenn lu ci nekk mat sëkk mu di doon waajur Sëñ Tuubaa ak bis bi nga xam ne waxuma la jigéen waaye góor ñi ko am bariwut bis boo xam ne ci yoonu murit ak ci diine islaam bu agsee eh, ñu bokk ci yoonu murit ñëppay daje ñi bokk ci diine islaam ñi ñi ñi ci bëgg lu baax ñépp teew fi ngir ak bisam ak màggalam loolu liggéey yàlla rek ko man liggéeyal yàlla rek it moo ko mën a moo ko mën a joxe kon nag maam jaara moom lañuy ñaanal ci bis bi di ñaan yàlla mi nga xam ne moo moo ko def li mu ko def may ko li mu ko may ci barkeem eh, yàlla defal ñun ñëpp xew defal ñun ñëpp jàmm ni ko ni ngeen ko xam ne nag màggal moom dafay bañ koy door a sos boobu ñi fi daan ñëw bariwut am nañ ñi ma njëkk a nett li ñi nga xam ne ñoo njëkk am ndigalul ci def màggal gi bañ fi njëkkee ñëw ay ginaar lañ rey ngir añe ko màggal gi ci topp xar lañ rey añe ko ginnaaw bi nag lañ sàkku ci Amadou Bachir muy mbàkke mbàkke bi fi njëkk a ñëw te yàlla dogal itam sëñ Tuubaa dénkoon ko dëkk bi ak barab bi ak taxaw taxawu Maam Jaara ci la at moom la njëkk a ñëw boobaak léegi juróom juróom ñaar fukki at tuuti la manqué boobaak léegi macha allah at mu ne day yokk léegi na àgg nañ ci yàlla gën koo wane gën koo yaatal ba nga xam ne ku ñëw màggalu Tuubaa ku ne bëgg nga fee ñëw am na ñoo xam sax dañ fi ñëw te duñ ñëw màggalu Tuubaa njabootu sëñ Tuubaa gi itam nag ah sëñ Moustapha xalaatam bu rafet bi mu demee ba xam ne sëñ Tuubaa sëñ Bassirou dénkoon maam jaara mu mu mu fexe ba fii mu nekk dund wéetaliku yi mu suwaa bam demee am na ñaan nga nangu na nag kër yëpp ak taalib yëpp di sos ay daayira di màggal jotee ñu indi seeni jëf di ko ko jébbal ñii seeni sëriñ la ñi ci ëpp du seen sëriñ boobu nag si di siñ siñ xam ne ñaan ngi nangu na mu mun na nag léegi jëf jii nga xam ne taalibe yi dañ koy jëf ngir yàlla ak liggéeyu maam jaar dama koy delloo ci maam jaar ci la tàmbul nag di defar dëkk bi te xam ne bu fi soxna si nekkoon du weesu loolu du weesu diineem njabootam ak i bokkam diine ji moo tax sëñ bi jumaa la fi njëkk a tabax boole ko liggéey barab maam jaara bi ba mu noppee mu tabax kër maam jaara goo xam ne kuy doomi sëñ tubaay ji góor am nga fi barab kuy doomi sëñ tubaay jigéen am nga fi barab ba ci rakki doomi bàyyi sëñ sa am nañ fi loola nag moo woo taalibe yëpp woo njabootu sëñ Tuubaa gépp ba tax fi mu ne ñu léegi ñëpp fi am kër am na fi mbàkke mbàkke yoo xam sax ñi am nañ fi ñetti kër ñi am nañ fi ñeenti kër nga xam ne daanaka ku am kër Tuubaa rek bëgg ngaa am kër fi la ca dolli ko nag mooy mam eh, maam jaare yi nga xam ne mat na ñaari junni bu fekkee ne bu ne dafa bëgg am fi kër xam ngeen dëkk bi kenn du xam fu muy tàmbale ak fu muy yem daanaka yoon wi nga xam ne Touba am aw na ko rek ci ci yoon woowa la aw kon nag loolu bu amee xam ngeen lu muy dajale ci mbooloo kenn du xam nu mu toll ba moo tax ba dem nañ ba nga xam ne eh, bu nu nguur gi joxut suñu wàll eh, màggal gi dana sooxe te xam ngeen ne nguur gi bokk na ci ay liggéeyam fu mbooloo mu mu daje ca bis ba walla ay bis yoo xam ne dañu fay daje faw am loo xam ne war na ko ci la la ko war ci dëkk yi moo koy war ci mbooloo mi ci bis boobee ci wàll yi nga xam ni moo na ko yoreel muy wàllu kaaraange wàllu faj wàllu ndox wàllu courant ak ak ak yeneen wàll loolu nag bi ñu demee nga xam ne màggal gi nag yaatu na ba nga xam ne loolu mën mënaluñ ko suñu bopp ci la ñu tàmbali nag di def ay réunion gouvernement bi euh, ñu daal def ci dëkk bi comité d'organisation boo xam ne yàlla def na man maa ko njëkk maa ko njëkk a jiite ginnaaw bi nga xamee ni sëñ Moustapha sos na ko yàlla dajeeg mu mu yoroon liggéey màggal gi ci Touba ci jamono Cheikh Abdoulaye mu ne ma nag kon na ngay jàng liggéey bi ànd ak waa dëkk bi di ko liggéey ci lañ ko sos nga xam màggal gi ñëwee lin man mën a suñ bopp moom da koy féetewoo ak ñi waaye ni nga xam ne nag état bi moo nu koy defal loolu nu ànd ak état bi taxaw ci loolu moom at yooyu moom la ñuy def at mu ne màggal gi la yokk di yokk waaye at mu itam nguur gi itam ñu ngi ci góorgóorlu di yokk ren ji nag daaw xam ngeen ne moom màggal gi jotut am ndax euh, Covid bi amoon te gis ngeen ni Touba màggal ya fa yëpp sëñ bi dafa ñaan ñu koy def ñu muñ yàlla indi jàmm ñoom ñëpp ñu maase ci muñ moo tax ba màggal Touba ñëwee ñëpp ko bokk màggal Poroxaan ñëwee ñëpp a ko bokk waaye daa teewut ci ngorom. mu wax ne daal màggalu màggalu poroxaan at moom nañ ko bàyyi ren nag fay laay alhamdu màggalu poroxaan ñëpp ci ànd nañ ci amal ko boobu sax am nañu ñu bari ñoo xam ne dañ ne woon bokkut nañ ko amal waaye moom sëñ moom ngorom may koon lool kon nag gii nga xam ne agsi nañ diis na lool ndax ginnaaw defuñ ko daaw daanaka damay wax ni ñaari màggal la ñuy boole ah biñ ci àggee mm, daje nañ ci suñ liggéey bopp comité d'organisation bi ak état bi def nañ ñetti réunion def nañu poroxaan benn ci lañ njëkk a yi nga xam ne moom lañ soxla ak yi nga xam ne at mee weesu soxla woon nañ ko te sottiwut ak yi yu bees yi nga xam ne amaat na ndax màggal gi dafa mel ni rek euh, xale boo xam ne dafa juddu di màgg màggaay ga gaaw bu fekkee ne menn mbubb rek nga nga nga ko wutal ren déwén nga bëgg mu solaat moomu mbubb du sotti màggal gi noonu la mel moom moo tax nag ren yi ñu soxla woon bari lool waaye nag bi ñu defee réunion yooyu def benn poroxaan def ñooro ab CDD def CRD Kaolack seet nag mboolem yi nga xam ni soxlaal nañ ko état bi ak war na koo def ak yi nga xam tàmbali woon nañ ko ak defuñ ko yooyu itam yëpp wax dëgg yàlla jamono ji xat na daje naa ak élection yi waaye luñ ci man ñi ngi koy def ba fi mu ne nag àgg guñ ci euh, màggal ga àgg bañ mën a def bilan wala leneen waaye bu dee ci wàllu ndox mi macha allah. yàlla def euh, gérer gestion ndox mi ñu jox ko société bu ñuy wax Flexo ñoom nag wax dëgg yàlla yàgg guñ fi waaye lu ñu mën def ndax bi ñëwee yokk nañ forage yi yokk pompe yi euh, liñ mën ci comme dëkk bi ci way dañoo ndawante yàgg ñu mën ci changer def nañ ko bu fi may wax ak yow macha allah fu ndox daawul àgg dana fa àgg fu mu daan àgg te tuuti itam dana bari état bi li mu mën tàmbali na ko def yéen fi may wax ak yow lu mën fukki camion citerne ñëw ak bâche gonflable yoo xam ni moom mënta ñàkk barab yi nga xam ne robine yi àggu fa ak li nga xam mbooloo mi dañu fay daj te robinet yi du doy ñoom yoon yónnee nañ yooyu ba tàmbali nañ liggéey bi ndax xam ngeen biir dëkk bi am na lu ma téeméeri bassin yoo ñaat juróomi téeméeri bassin yoo xam ni ñun ñee ko tabax ci seen biiri kër ko defee citerne yooyu camions yi citerne yooyu ñoo koy duy bu ñu ko duyee balaa màggal gi bu feesee rek bu àndeeg robinet yi yaakaar naa ne incha allah dana dana dana eh, yàlla mën noo dimbali bu dee ci wàllu courant bi lañ soxla woon lépp joxuñ nu ko waaye lu mat fukki kilomètre rek juróom eh, Senelec yokk yokk na ko fi changé na lampe yi indi na it ay groupe yoo xam ne courant moom ginnaaw kenn mënu koo atte kenn kenn kenn kenn kenn xamul fu muy coupé ak fu mu dul coupé indi nañ groupe yoo xam dañuy dimbali ci loolu ci kër sëriñ bi ak jumaa ji ak kër sëriñ Tuubaa ga wàllu yoon it xëy na moom rek mu moo amoon jafe-jafe waaye li nga xam ne diggoon nañ nu ci ren muy tali ginnaaw kër sëñ ba ak penku jumaa ji nga xam ne mu sëñ bi julli fa lay jaar ak àggale yoon bi nga xam ne dañ koo tàmbali woon mu war a joti trente ba dog tali bi moom route régionale ba ci kanam loolu macha allah euh, ag ag route def taxaw nañ ci bañ defar ko ba ba ñuulal ko biir dëkk bi ñu ngi sekk sën yi yoon yi nga xam ne yoonu suuf la ndaw taw taw taw bi yàqoon ko yooyu ñi ngi ci waaye ak àggagut ci wàllu sécurité it macha allah bi sëñ bi ñëwee léegi gendarmerie teel nañoo ñëw ànd ànd ànd taxawu sëñ bi lu mat ñaar fukki gendarme ñu ngi ba sëñ bi ba léegi tey jii euh, lu mat ñaar fukk dolliku na ci mbaa fanweer ngir ñu ne ci biir dëkk bi ndax dëkk bi dafa fees na dell gi gan te ñëpp bokkuñ lu leen fi indi ñëpp bokkuñu lu leen li ñu wut ba ñu ngi liggéey liggéey bu rafet GMI ñu ngi leen di séentu wax nañ lu mat juróom benn téeméeri GMI dana ñëw ñoom bu ñëwee yor liggéey bañ daan yor kër sëriñ bi barab ba teen ba euh, ak ak yéen war a yor yëpp gi gis ga teen ma di yor moom tabax yi nga xam ne état bi dañu ko fay defar muy résidence des hôtes ak tribune polyvalente ak salle bi nga xam ne dafa nekk dafa nekk ca kanam ñu di fa defee réunion Euh, wàllu garab yi digg nañu ni ko waaye comme àggaguñ ci mënuñ cee wax dara waaye digg nañu lu mat euh, fukki million ñaar yoo xam ne ci ay garab xaw fukk ak juróom waaye nag àggaguñ ci ak i ambulance xam naa daal service yi nga xam ne waraguñoo ñëw buñ ñëwee te def ni service service yi ñu ci fekk ñu liggéey ba noppi yaakaar naa ne màggal gi incha allah dana raw nam daan mel euh, service service d'hygiène ñëw nañ tàmbali nañoo pompe tàmbali nañoo def def seen liggéey na mu ware élevage itam xaj yi nga xam dañ daan matt nit di wër lañ ca man def nañ ko ci yeneen yeneen yi ci communication douane macha allah nañ moom noonu mosuñu am benn jafe-jafe ak douane masaan màggal ñëw dañ ñu taxaw yombal te du tee ñu def seen liggéey na mu waree ndax man dama leen di wax nun bokkun ci ñi nga xam ne dañuy yom yombalal fraude ak ak di ak di fi dugal marchandise moo xam ne ngir jaay la nun bokkun ci moo tax ba nun neex na noo dimbali waaye ñoom it xam nañ loolu ba lépp lu jaaru dañ koy bàyyi euh, nga xam ne daal kon fi may wax ak yow fi may wax ak yow macha allah service yooyu ma la wax yëpp bu ma ci benn ñi war a def seen liggéey ñi ngi koy def ñu noppi noppi nañ ñi ci des ñu ngi leen di séentu te am am incha allah am yaakaar nañu ne rek nit ñuy def rek ñoom la ñuy def ndax administration benn la ndigal li benn la liggéey bi benn la euh, kon nag nun noo ngi ci comité d'organisation mi ngi ci liggéey bi ànd ceeg administration bi préfet sous du duñu fi jóg waxtu ne ñi ngi jokkoo ñi ngi xam li fi xew nuyet nu leen wax li fi xew lu manqué ñu wax leen ku lu ñu war a def def ku lu ñu war a wax kon kon fi may waxee ak na nag ginnaaw màggal gi moom daanaka des na euh, lu jege semaine foofu la liggéey bi toll ndax bu dee wàllu comité d'organisation bi ak administration bi daal liggéey bi sori na lool rafet nañ itam njot nag wax dëgg yàlla rafet nañ njot ci mu tàmbalee bu ne àggee rek wax dëgg yàlla mboola moom fu ñu daje jagal leen day jafe waaye sant yàlla dana gën a am ni mu amee woon